premier tour, madame. Et je Est-ce que élection dina am est. <laughs> ce que élection lu tax ah. xam nga nag nous sommes des républicains. <laughs> président jël na décret convoqué ñu le 24 mars. le décret a été attaqué. non mais décret moo fi nekk ba léegi. tant que décret baa ngi fi man pour man kuy nelaw naan élection du am yaa ngi ndax sa bopp. Ah, baax na tant que mu ngi fi. Mhm. Euh, bu ñu naan candidature président de la république moo ñu joxoñ benn candidat parce que ñun aussi. ñoo ko woon ne ko yaa liggéey ñii ñëpp yaa leen xam